nga ni danga ngaa ci gëm-gëm tey par rapport ak euh, douche ak sangu ne ci biir douche di wax baax na wala baaxul waaw papa xam nga euh, mag ñi dañu bëri woon ay teggin. Mhm. ba nga xamante ne euh, dañu daan bëgg yar bi ñu lay yar. Mhm. Euh, nga di ko wane ci fépp foo xamante ne moom nga nekk ci biir kër gi. ba mhm. tax na comportement yi nga xamante ne yow da ko war a am ci biir du sax dañ la ko doon jàngal. parce que sànq maa lay dégg ngay wax taxaw naan jox ma njàmpe beeg saabu bi jeex na. yooyu yëpp nekk na indil ma serbet bi indil ma serbet bi waaw voilà yow balaa ngay <laughs> waaw balaa ngay dugg ci douche bi war nga mën a. kuy fëgg damay sangu maa ngi ñëw. waaw yëpp dañ koy def. waaw amuñu benn woon dëgg la dama bàyyi. <laughs> waaw balaa ñu koy def wareef nag ñu dem xooli élément bi. laa ilaaha illallaah ay ta ñu xool. <laughs> wax si douche moom francement moom loolu moom dafa rafetul sax waaw douche moom soo xawee ba taxaw teg sa tànk benn biir ci biir douche bi rek malaaka yëpp dañuy dellu sa ginnaaw seytaane rek moo la fekk ci biir waaw am na ñu xam ne nag yeneen saa ay rab mun na leen fekk ci biir ñu wax ñu wax ci biir téléphone waaw téléphone moom normalement warul dugg saa si douche waaw balaa ngay toog foofu ci biir di wax téléphone ni loolu moom rafetul moom. ku mun a moytu loolu daal ci biir douche daal di wax même suñ la woowee sax waroo wuyu sax même soo nekkee ci biir douche suñ la woowee ci biir waroo wuyu yow ku nekk ci biir toilette bi waaw loolu moom baaxul man moom franchement man moom loolu mënu ma ko. man rafetlu ma ko quoi parce que douche soo ci nekkee parce que douche nekk loo xam ne lu sérieux la. kaay du caaxaanukaay du dara. kon da ngay am soxla boo xam ne bu ñor la boo xam ne moo lay sax ëpp doole soxla bu la ëpp doole xam nga boo xam ne euh, foo nga def ko kon soo fa nekkee xam nga da nga war di def lu sérieux xam nga nekk ci li nga xam ne moo la fa bàyyi def say affaire après génn dem waroo fa nekk di wuyu téléphone waroo fa nekk di wax ay wax yoo xam ne xam nga yoo xam ne ay yeneen wax la quoi la la man pour man soo fa nekkee dafa nekk lieu boo xam ne lieu bu bu bu xaw a kii la mais lieu bu yéeme la quoi. maam ngi dañ ko doon tere sunna la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñu booleeg malaaka wa inna aleykum la xaafizin kiraaman mun ya'lamuuna ma tafaaluun ku nekk boo demee bañ togg la jëf yàlla daf la affecté ñaari malaaka muy raqib ak atid moo tax mu ne maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqibun atid ñaar ñooñu loo wax bind nañ ko mais xam nga ñoom yàlla daf leen a bind ci leer ñoom du ñu mooy seen ndigalu boroom ñoom duñu duñu ñun ñoom ñun ñoo leen gën mais ñoom ñoo ñu dàq jaamu yàlla moo tax seen sellte moo tax bu nit duggee ci wanag dañuy taxaw ci bunt bi di la xaar moo tax yonent bi di tere nit dugg ci dus di wax dugg ci dus di wax mag xale kuy góor ak kuy jigéen du aada de mais sunna la ndaxte malaaka yi duñ mën a dugg boo duggee yaa ngi simmeeku boo duggee yaa ngi faj sa aajo booy dugg xam nga foofu lan lañ la sant ci duus bi nga taxaw ci buntu duus bi ñaan ñaan gi ma la wax léegi aouzu billahi minal xubusi wal xabaa xabaa'isi ñaari jinne lañ bu góor ak bu jigéen dina waral léeg-léeg nit ëmba dugg ci duus te ñaanul ñaan googu jinne yooyu changé doom doom ji bu juddoo nekk leneen ñu naan di doom ji doom ji dafa mel ni dafa am malformation dafa nekk jinne bi nga duggee lañ ko changé bi nga yee noonu te jotuloo ñaan bi nga xam ne waroon nga koo ñaan loolu moo koy waral duus kenn du ci wax sunna la dañ ko tere yonent bi moo ko tere sallallahu alayhi wa voilà mu ngoog donc loolu defe naa gëstu la boo xamante ni am na solo jëm ci nekk ci douche ba pare di wax baaxul en tout cas. waaw nekk ci douche di wax euh, baaxul pap euh, euh, mag ñi dañu ko daan tere. Mm. ndax dañuy wax ni que douche dafa bëri yoo xamante ne dafay nekk ci biir lu seytaane seytaane seytaane jinne yi li nga xamante ne daal bët yi mënuñu leen gis. Mm-hmm. dañuy nekk ci biir douche. ñu ne ci douche doo nga baal ma dafa vulnérable. doo am ñu lay garder comme malaaka yeeg ñooñu pare. waaw hmm. loolu la ñu wax euh, dañu ne euh, comme soxna Zeynab nu mu ko waxee hmm. nee na malaaka yi nga xamante ne ñoo lay topp saa su ne boo ñëwee ci ci douche dañuy taxaw ci bunt bi di la xaar. Hmm. léegi nag dañu wax ni que euh, douche su su fekkee da nga fa dugg déjà su su fekkee soxna nga dañu wax ni que dañu da nga war a muur sax sa bopp pour dugg ci douche douche kese. soo demee ci risaala moom gën na gën na xóot dañ ne même góor sax suy dugg si douche dafa war a muur boppam. Ah. pour wan la ne la euh, douche nekkul loo xamante ne ay caaxaan la ndax li la koy wan mooy dañ ne la douche déjà yow boo duggee ci biir douche. Euh, chaise anglaise bi euh, wala chaise turque bi lu mu mënti nekk mm. yow bu fekkee da nga bëgg def li nga bëgg def ci ci bi déjà waroo woon kanam li nga xam ne moo di penku waroo ko woon ginnaaw il faut ñu xam ni ñu nekkee ci douche pap ak ñi tabax da nga koy wan buuf waaw dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy ñu sóor penkuwaay. waaw waaw il faut nga koy toogaay yi waay. waaw ah, wax leen ko de. <laughs> salon de l'habitat bi nga jàng même boo demee même ci même ci téere Serigne même ci téere Serigne Sonia bu hmm. propre ay ni daf ci insister ne euh, par exemple su fekkee bu weesoo hmm. tamit Pape. sangu bi nga xamante ne moom ngay def maanaam dindi sa ay yére yëpp. Hmm. su fekkee sangu woo dañuy tere nga futteeku dindi sa ay yére yëpp. mag ñi dañ daan bañ loolu te am na ñoo xamante ne bu ñu duggee si douche li ñuy njëkk def mooy simmeeku jël seen yére yi teg ko fële ba pare nekk di wax nekk di def yu nekk ñu xam ni que tamit booy dugg si douche dafa baax li nga xaman douche il faut nga xam aussi du dangay ñëw rek parax parax rek dugg tànk gauche ngay jiital pap gauche gauche ngay duggee si douche sooy génn nga génnee droite contraire jàkk la bee da ngay bii da ngay duggee gauche génnee droite bee droite génnee gauche. ay waay boo kiiwee nag xaabar xaabari rek. waaw mais dañu la wax ni que yow avant ngay yegg si douche bi d'accord mm. dugg si douche bi waaw par exemple toll nga ah, ay ay ay benn mètre avant ngay ñëw ci douche bi wala 500 mètres avant ngay ñëw ci douche bi ñu ne la yow soo duggee si douche bi da ngay ñaan yàlla mu musal la ci li nga xamante ne sobe ndaxte seytaane ah. soo duggee mm. xam nga liñ lay njëkk jàngal mooy règlu laab xam nga su fekkee laaboo mënoo julli mm. te seytaane soo duggee dafay wax euh, ay ñoñam ne leen nañ ko nañ la perturber. Mhm. bu ko defee yow nga def tout pour pour yow ni ngay def yow sobe yi mën laa laal. Mhm. ñu ne la nag ngir nga mucc ci loolu il faut nga xam déjà que yow tànk gauche ngay duggee. Mhm. pour nga balaa ngay duggee tànku gauche su fekkee toilette yi fii la nekk ci plateau bi nga toll fële euh, dañu la wax dafa am benn ñaan boo xamante ne moom ngay def su fekkee mënoo ko nga wax ko ci olof. Mhm. ni yàlla yàlla na la yàlla musal ci li nga xamante ne moo di sobe ak ñi nga xamante ne ñooy musiba yu góor yu jigéen yi nga xam ne mën nga fa fekk. léegi nag dañu wax ne am na ñaari façon mën nga wax euh, a'uuzu billaahi minal xubusi wal boo jibee douche bi parce que ci biir douche kenn du ci tudd. yàlla kenn ne balaa ngay dugg loolu ngay wax am ñeneen ñu ne danga naan allahumma bi a'uuzu bika minal xubusi wal xabaa'isi. Mhm. su fekkee munoo loolu nga wax yàlla yàlla na nga musal ci li nga xamante ne moo di sobe ak lépp loo xamante ne day lore te yow munuloo ko gis. Mhm. Mhm. su fekkee da ngay génn nag comme ni ma waxoon sànq euh, nga nga wax xufraanaka mais sooy génn sa pied droit moom ngay mu ngay génnee. gauche ngay duggee droite toog ci biir douche bi di wax baaxul Pape. dafa mm-hmm. am kenn koo xamante ne ci page bi dafa ma ne. Mm-hmm. moom euh, woyu Stromae mu ngi ko mënee seen toilette. parce que nee na grand frère am euh, ñoom ñu ngi nekk États-Unis dafa monter ay baffle ci li nga xam ne mooy biir douche bi. Mm-hmm. léegi nee na yow soo dugg see. si biir douche bi voilà ci douche la ñuy woyee ah. ci ñuy voilà. waaw euh, tout ça. léegi mu ne la yow su fekkee da ngay dugg si douche bi nee na ñoom sa téléphone lañ ngay jël am na benn câble boo xamante ne moom mooy joxe ci baffle yi. léegi boo duggee da ngay yow son boo bëgg teg. moom ngay teg ci biir douche bi papa mhm. léegi xam nga yow bu son bi neexee fa ngay nekk yow tamit nga bëgg fa nekk di way di def yoo xamante ne moom ngay def léegi nag fii mag ñi dañ doon dañ cee amoon yenn solution yi yow dañuy def tout ba nga xamante ne toilette bi dina nekk foo xam ni yow doo am koo waxal ci kër gi mhm. di nga génn kër gi dem ba ci ginnaaw wala nga dem ba dépassé tool yi xam nga da ngay gis ay kër yoo xam ne ci biir du am toilette da ngay génn mag ñi loolu ñu si jublu woon mooy dañu doon bëgg yow boo nekkee ci biir douche bi nga def li nga xamante ne moo la fa war a def def li ngay def nga génn toilette waroo fa sax yàgg pap defal farata bi nga xamante ne moo la fa dugal nga def li ngay yóbbu voilà après nga génn di wax ni également toilette dañuy bañ soo fay dugg nga am euh, lépp loo xamante ne euh, dafa dafa laal turu yàlla. Mhm. wala mu nekk arxuraan wala mu nekk bërëbu sobe la mais dafa am ay nit yoo xamante ne. par exemple réfléchir dëgg la. voilà mais dangay takk sa benn jaaro boo xamante ne dafa am xaatib. Mhm. mais doo ci bàyyi xel. Mhm. nga yàkkam voilà jaaro ak xay waaw day am yoo xamante ne euh, dañ koy bind. noo sama jaaro amul amul bind mais yow sa bos dafa am xaatib. sa bos a gën waaw léegi nag bu fekkee dafa am xaatib. <laughs> <laughs> bu fekkee dafa am xaatim pap dañ lay wax bu ko dugal imam bi dafay dafay wax ni mu ne euh, boo nekkee ci biir douche bul wax bul de zikkar bul tudd turu yàlla bul wax dara euh, ñu ne la xam nga nuyoo su ma la nuyoo par exemple sunna la fay bi nga may fay yow mhm. moom mooy farata ah bon mais suñu nuyoowee mhm. yow mi nekk ci biir duus bi mhm. bul bul bul wax doo fay suñuy nodd xam nga yow da nga war di jaar bu noddukat bi bu waxee nga toppaat ci ginnaaw mhm. boo nekkee si biir douche doo waroo ko def soo tichoolee mhm. kenn tichooli ci biti mhm. nga war ko wax yaxramukallaa wala yow nga tichooli war a wax alhamdulilah yow mi nekk ci biir duus bi doo wax waroo kii dara même dañ ne la lu mu lu mu mënti nekkee des fois day am euh, yenn borom xam-xam yi yoo xam te dañ naan la su danger di am mais pour man soo nekkee ci biir douche bi waroo mën a xam danger boo xamante ne moo ngi am ci biti hmm. ba nga xam te ne yow war nga ko mën a wax ne ko defal lii wala defar laa voilà mag ñi dañ daan def xale su duggee su douche su génnee xam nga sangu na ba pare fekk mu ngi doon woy hmm. dañuy jël euh, kàccir yi lañ ko doon wooye ñaf la ko parce que sa sa sa yaram bi day tooy après si lay gën a saf bu ko defee yow doo ko yow dootoo ko defati euh, te ñu ne euh, douche dafa war a nekk foo xamante ne dafay am sutura pap mhm. pour ñi nga xamante ne ñooy nekk ci mbedd yi également di wax xam nga su fekkee dañu ne nekk si douche du wax du nekk si douche rek doo wax mhm. parce que bu njëkkoon kër yi amoon na ñoo xam ni amuñu douche mhm. ngay dox par exemple euh, nga safa saw xam nga da ngay taxaw ci mbedd bi nga saw wala feneen fu mën ci nekk dañu ne fi nga xamante ne foofu ngay fajee sa aajo foofu la ñuy tere ko fa waxee parce que mën nga ñëw si mbedd ni fii benn kii bu làkku la rek fii laay tuuree ndox. Mm-hmm. après may wuy téléphone wala dara dañ ne la moment bi nga xamante ne yaa ngi faj sa aajo fu mu la mënti fekk nga koy def foofu douche la ci yow foofu waroo fa waxee. que mu nekk ci mbedd que mu nekk fu mu mënti nekk. Mm-hmm. léegi nag loolu dafa yàggoon di am. nit nekk ci ci mbedd yi parce que dañ daan gis yenn euh, tabax yi ci naare wala yu mu mënti nekk mm-hmm. soo nekkee ci biir wanag bi. sa bopp dafay feeñ mhm. sa tànk moo dul feeñ say say cër nëbbu léegi voilà léegi yow nga romb ki ki si biir yow xàmmee nga ko mhm. mais da koy interpeller xam nga mhm. des fois sénégalais tamit day def loolu dafa xaw a ñàkk teggin su la xawee séen rek danaan ey eh, Pape Cheikh fekk yow yaa ngi ci li nga nekk mu woo la léegi yow après yow mën nga de manière spontanée nga ne ko waaw naka mu wala dara mais loolu dañ ko daan tere nga wax bi fi mu la fekk daal mm. waroo ko def digle wuñ ko en tout cas daal digle wuñu ko voilà léegi nag loolu euh, daf fi yàgg pa mm-hmm, mm-hmm. nekkul loo xamante ne tey jii la la tàmbale mm-hmm. ndaxte jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon euh, kenn romb ko euh, nuyu ko mu noppi waxu ko dara mais pour bañ a indi ñol-ñol ci xolu doomu aadama bi mu paree mu ñëw ne ko euh, euh, sànq dama nekkoon ci wanag bi moo tax bi nga may nuyu fayuma parce que moom dafay joxe tout le temps bon exemple pour ñeneen ñi nga xamante ne mhm. ñooy roy ci moom ñu mën a xam ni ko loolu baaxul mhm. léegi nag mu ne euh, nañu mooy ibnu daawda moo ko wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi mu ne nañu moytandiku ñetti rëq-rëq ñu ne ko ñetti rëq-rëq yooyu lan la mu ne nga tuur ndox wala nga def say besoin foo xamante ne na fu ñuy naanee maanaam bu am na yenn fooy nekk yenn dëkk yoo xamante ne euh, marigot bi daf lay jege nga ñëw taxaw ci marigo bi tuur ci ndox te am na ñoo xamante ne euh, dañ ciy naan même bu dul nit ci sax mala yi des fois mu mar naan ñëw taxaw di ci naan ñu ne dañuy tere loolu dañuy tere également ci yoon bi bi nit ñi di aw nga di fa tuur ndox wala nga fay def ay besoin fu am keppaar également dañ koy tere taatu garab boo xam ne nit ci dañ fay toog nga ñëw di ko fa def di wax ni baaxul chaque fois yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daan interpeller ay nit nee nañ douche euh, am na yenn feebar yoo xamante ne soo ko fa xasee jëlee ba ilaa yow mi diin dootul wér moo tax ñuy tere ngay ngay def sax yenn yi di cëppi cëppi wala nga fay daanu mm-hmm. parce que dañuy ne douche soo fa daanuwee dootoo am lu ko kii du la kii surtout jigéenu wérul yi également dañ leen mm. koy tere mm. euh, ndax soxna Zeynab mu ngi koy wax nee na léeg nga dugg douche am nooy waxee wala dara di yuuxu euh, euh, jinne wala dara weccee sa doom kon di wax ni douche du foyukaay pap sëriñ soye bu wax na ko insisté na ko ci biir xuratul ay ni nee na toilette ku fa nekk da ngay def li nga xamante ne moo la fa tax jug après nga génnaat parce que loo xamante ne la seytaane day ñëw taxaw keneen ak keneen dafay ñëw taxaw da ngay vulnérable voilà voilà intéressant en tout cas ñi ñu ko leeralalee euh, peut ñu bëri euh, xam nañu ne douze par exemple kenn du ci wax mais détails yi euh, baax na te am na solo am na ay exemples yu bëri yu ñu mën a joxe waaye ñun xam nga dañoo xewal ay coulé bain ak ñoom seen waaw ah, yooyu suñu douze yi dafa néegee <laughs> Serigne Touba waaw boobu petite waaw. waaw. nga dafay coordonné directement ak néeg bi donc yooyu yëpp tamit dafay jar ñu ñu ñu gën si laajte. parce que douche douche ba nga daan dem kër maam. mu bu hmm. làqu woon. nga xam ne ba nga fa daan dem sax da nga fa doon ragal. Hmm. ak ñun suñu salle de bain yi nga xam ne moom la ñu am nga xam ne hmm. say yére. yëpp ak sa sa dëkkuwaay ci douche bi lay nekk mhm. donc loo tam dafay jafe appliquer li nga xamante ni moom la Marianne wax yëpp mhm. gëstu rek pour gën a déglu li nga xamante ni moom moom la moom la mais moytu moytu rek ah mag ñi tere nañu ko arrêté voilà moytu surtout léemu bi li ci gën a kii mooy léemu bi booy dugg ak booy man loolu mosuma ko xam ah. donc tey jii c'est important tey te li mu wax ni saar yooyu mën nga ko wax ci ci ci alxuraan mën nga ko wax aussi ci ci ci olof mm-hmm. donc dafa nekk loo xamante ne jar na jar na jàpp par exemple wala mm-hmm. ba pare yàgg gi am na ñoo xamante ne dañu jël seen temps toog ah, ah, waaw douche kan ci jàpp. non nga jàpp si douche. mais après li ngay def baatu seede yi. Ah, moom ngay def jee ci ci léemu ah. ci biti. Ah. te te te balaa ngay def léemu bi euh, euh, également ñaan bi ñuy wax balaa ngay dugg ci toilette. Mhm. il faut impérativement nga wax bismillah balaa nga koy def. parce que waaw yonent bi sallallahu alayhi dafa ne euh, bismillah bi ngay wax. balaa ngay wax aonzu bi allahuma inni aonzu bika mhm. minal si wal xabaayisi nee na bismillah bi ngay wax mooy mooy tax. soo nekkee ci biir comme ni ñu wax ni jinne yeeg yeneen ak yeneen mm. dañuy jàkkaarlook yow nee na euh, loolu noonu bismillah bi ngay wax mooy mooy muur sa awra ba nga xamante ne jinne yeeg yooyu ñuy wax ñoom duñ la mën a gis voilà macha allah donc loolu nga ñu indil tay ci euh, gëm-gëm ñu ngi leen ci gërëm bu baax Marianne euh, Siva Diop jëm ci douze ak yenn ci yu bëri yu mag ñi tere mag ñi nag lu ñu mës a def rek dañu dañu dañu am na lu tax waaw waaw nga baal ma sëriñ Soye bu également mm. tere tuuf li ci chaise anglaise mu ne loolu dafay ume te des fois yow nga galax koy def de voilà nga tuuf li ci waaw tuuf li ci chaise anglaise wala chaise turque mu ne loolu dafa nekk loo xamante ne dafay ume donc koo xamante ne mun na ko moytu mu moytu ko voilà jërëjëf en tout cas Mariane Siva ñu jaaree fa xam peut-être euh, lu ñu xamuloon ki ñu fekk